moo waral boroom xam-xam yépp toog ba seet xam ne mbindeef mi gën a influent ci adduna mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam diine jooju ñu dem ba nga xam ne européens yi nga xam ne ci moyen âge noonu la ñu umpalee woon lislaam ba nga xam ne xamuñ sax turu yonente bi sallallahu alayhi wasallam Maaound lañ ko daan wax pour ñenn ñi dañoo defe ne Maaound benn espèce or la bu ñu teg ci kaw ñey ci benn tàmpal ci ci penku ñenn ñi gisee ne Muhammad benn prêtre la boon boo xam ne dafa déposé chrétien la ñeneen ñi jàpp ne Muhammad tiiraa la woon boo xam ne maanaam euh, buur la boo xam ne dafa doon wut nguur ci turu diine di nax nit ñi ñenn ñi ne dama yàlla daal épileptique la woon boo xam ne dafa daan def bu bu daanoo say ba jukki gémmiñ gi jukki pour it dama yàlla daal bu jógee dégg nga di di bébant maanaam di radote xamu nu ñu ko mën a waxee ci wolof di waxtu mooy alxuraan ñu bind ko ñu dem ba. ñoo ñooñu daan bind loolu seeni sët nekk fi ruus ku gis loolu Casanova monsieur monsieur Casanova benn professeur bind Mohamed et la fin du monde li mu bindoon Irving Washington ak li nga xam ne mbooleem bind ko ci Europe yi Voltaire pièce théâtrale bi mu bindoon Mahomet def ko ci un tyran sanguinaire boo xam ne moo gën a doy ci àdduna ñu dem ba yooyu yépp ñu dem ba gas ko suul rëccu ko ci seeni gëstu te ci ñuy défendre ni développé ñu dem ba tubaab bu ci am xam-xam tuub ñu dem ba nga xam ne gis nañu ne ba tubaab bu ci am xam-xam tuub ba nga xam ne gis nañu ne France moo ëpp conversion ci adduna gannaaw Angleterre ñu gis ne tubaab yi ci seen bopp ñu ngi tuub ba tax na ndax dem nañ ba kenn mënatuloo ne nax ndax science développé na ba xam nañ ne yeneen diine yi ci des teguwul ci kaw daara daara dara ñu gis ne l'islam alquran rawe na science ay siècle yi siècle bis bu nekk bu science gën a développé wala mu découvrir dara lu bees bu mu seet fekk alxuraan waxoon na bu kenn xamul ñuy dem ba nga xam ne borom xam-xam yépp waxoon na ko bu kenn xamul ñuy dem ba nga xam ne borom xam-xam yépp alxuraan yi ñéem na leen ba xam ne bi ñu demee ba benn diine ci gis yi diine yi gis doyatu leen ñépp ñu nga ci xam ne walbatiku nañu seet l'islam ñépp dañoo tuub ñu dem ba européens yi ak américains yi islamophobie boobu maanam ragal gi ñu ragal l'islam di leen sax ay pexe ak i jëfin ak i méthode ñu ne nañ xeex l'islam doxi ci di xeex l'islam l'islam nag ne nañ xeex l'islam doxi ci di xeex l'islam l'islam nag di loo xam ne kenn mënu koo xeex mën nañu xeex jullit ñi waaye l'islam ci boppam kenn mënu koo xeex ndax aqida moom du dañ mukk bu ñu seetee léegi nag doyadi gi l'islam maanaam jullit ñi ñàkk fayda gi ñàkk fayda ak doyadi gi ñu doyadi ñu gis Algérie loolu tax bu ma ko waxee day mel ne politique te man sama yoon ci politique politique bu moom politique lu moom l'islam ma intéressé moom lay waxal